ñakay saaga de ma bokk sa xam naa fu ma ko fekk ñu koy wax wax bu ñaaw jaral na ma sa xuloo ba gaañ si wala ma gaañu ndax Baye Sall li mu defal bari na ñu nekk Touba gi ñu defaloon ko. ay moroomi laagoom doon avocat di ko défendre bu baax ci taxawaay bi mu am ci ñoom jàpp nañu ni kat ku koy xarab ñoom nga ko def ba incident yi fi amoon jamono ji moom Baye Saliou Ndiaye daloon ci kawam tey jii metti na leen loolu waaye nag bi mu ñëwee di leen indil ay jumtukaay lu ci mel ni ay bekkee ngir ñu mën koo jëfandikoo ndaxte jamono ji de da nga koo tumuraanke woon ñoom way laago yi nekk Touba indi ñu jàpp ni kat xeebu leen lépp lu mu ko jox dana leen ko jox jël alal boppam di leen pare mu faj leen boole kook tamit lii nga xamante tamit indi na leen ko ñu mën koon a tas seen biir kuréel gii. yàlla na ngi ni jàppale bu baax a baax ndax xam naa man benn man damay toog ba xaaju guddi ñu woo ma téléphone ne ma bàyyi saal nee na nangam ma xëy suba niñ niñ kuréel bi ñu ni ànd fii ni ñëw dajee daral benn place moom mu jël wataam dikk jël ñu dem duñ si ñàkk ñaar dërëm duñ si paasante duñ si dem moo ni yóbbu moo ni delloo si sell sol fa mën a duñ fa mën a jël mu yëkkati jox ni solo si ñaar dërëm it te moom dëgg yàlla ay mbiram moom lees ko jox day moom ci xajj ak seen surtout ma handicapé ak handicapé Mbàkke yi ñoom ñëpp la yemale ah moom daal li koy jox da koy séddalee ni mu waree ni mu waree la koy séddalee lu fi ñëw ci moom surtout ma màggal gàmmu yëpp lu ñëw si moom da koy seddalee ni mu waree ah aduna nag mënut a am ñëpp mënuñoo bokk bëggandoo kenn te eh, eh, affaire yi tamit nag ñëpp ni mënuñoo bokk am amandoo yàlla def na yàlla defal na ko connaissance mi ngi ami connaissance am di ligganti eh, di ñëw lim leen ciy sedd ngir yàlla wooy yàlla nañ ci liñ ci mos nañ ci góorgóorlu te xam ne loolu la leen ci yàlla suñu borom ci yàlla suñu borom moom la leen ci jox ñu mos ci waaye nag doxut nag moom ñu ñu ñu ñu ñu koy wax wax ñu ñaaw di ko ñu ngi koy teg ci deram lu ñaaw loo xay si ni bi moom Baye Sall defu ko Baytaal moom lu mas a ñëw ci moom yendu lu yendu ci loxoom fanaan na ci loxoy handicapé yi. ma taxaw ci bunt bi xaadim woo ma dugg boobaak léegi lenn loo xam ne lii lu jariñ handicapé la Baye Sall woo na ma ma ma am ca ak lépp lu mu doon nag bu dee xaalisa bu dee ceeba bu dee diwa bu dee ay beeke wala puus-puus lu ci ne jox na Baye Sall jox nañu ko lépp li nga xam ne nii jox nañ ko ko dana nu woo. nenu kaay leen bu dee dërëm nu am ca dërëm ku ca sa wërsëg nekk di dërëm am nga ko ku ca sa wërsëg nekk ci junni nga am ku de ñaari junni nga am ko moo moo loolu daal laa gis waaye fii mu ne daal Baye Sall moom jërëjëf li ñu yàlla na ko sañ sëñ Fallou taxawu. ko yàlla na doon si njëg bi ci barke Borom Tuubaa maanaam wax dëgg yàlla ba nga xam ne léegi réccu ma ko. daa jënd sama numéro doo xew dana ma woo. képp koo xamante ne jàll nga loo ko war a jàll yàlla moo koy faj. moom Baye Saliou Ndiaye kàddu gu gàtt la indi gis ni kat moom daal ñooñoom yi du leen bàyyi ginnaaw dina leen jàppale saa su nekk te am na nag ay projet pour ñoom la mu bëgg daal mooy lépp luy mendicité mu jeex bu faaw. yéen xam ngeen ci loolu ceebu màggali koor bàyyiwul fe dara lépp lu mu mën rek ci taxawaayu handicapé yi incha allah rabi danañ gën a yokk jéego yi wër handicapé yi fi ñu nekk ñu sensibiliser leen jàppale leen ñi ci mën a am ay procès ñu defal leen ay procès pour ñu mën a liggéey bu ñu xëyee mën dem daanu seen dool dimbali seen njaboot parce que ay père de famille lañ dañuy liggéey nañ leen jàppale ñu am ci lu ñu jàpp pour mën a jàppale seen njaboot. Baye Saliou Ndiaye mi di fàtte mi ngi jiite association boo xamante ni ay ñooñam ñoo si nekk doon ay way laago nekk nag nit ku social si biir Touba ak département de Mbacké moom daal li mu bëgg mooy way laago yi am seen indépendance bopp dootuñu base si kenn te leen koy may jàpp na ni kat mooy bokk si instance de décision yi état gëstu leen wutal leen ay projet su ko defee ñu mën di liggéey ndaxte ay borom xel la ñu